di bind leneen pour sound bi mu ne ma non non non est-ce que tu peux ma remettre de la folie dans le texte loolu daf ma gën a permettre ma comprendre lan mooy sama direction artistique. sama mm-hmm. m'a permis daf ma dimbali ci sama orientation. ci loolu noonu aussi mu nekk benn way ci sama carrière après album topp ci bu mu produire moom après ay tournée topp ci. mais li tax ma koy célébrer c'est pas ce qu'il a fait pour moi su ma ngéntee day ñëw mm-hmm. su ma dëjee day ñëw ngénte na plusieurs fois il a été la première personne à être là et je voudrais saisir cette occasion assez positive cette occasion boo xamante ne nit aussi boo koy Fadel Barro avait l'habitude de me le dire mu ne malal des fois dañu war a di woowante di waxante lu baax c'est important dañuy woowante de temps en temps boo xalaatee benn affaire bu baax ci papis rek si utile que nga jël sa téléphone ne ko mais papis yaa ngi fàttaliku jour nangam bi ngay def lu baax dafay dafay dëgëral mhm. diggante donc buuba loolu lañ seq musuñu am un problème particulier je voudrais dire que c'est une personne magnifique une personne extraordinaire loolu tey fii laa ko mënoon waxee bi may def émission également télé fii jàkkaarloo hmm? bu yàq suma émission suma suma dëgg la li may wax. Hmm? man nag damaa gaaw parce que depuis 2004 ñu ngi ànd il est il a toujours été là. Hmm. loolu am solo la pour ma ma wax ko te. malal yàq nga émission. occasion bii laa donc pour wax ko donc. ku fi nekk fii dafa am ay man dama am ay samay ay nit ça veut pas dire que les autres ne sont pas bien. mais c'est important que je le dise. bi ma tàmbalee fii si émission bi fii jàkkaarloo également Papis laay woo régulièrement mu may jox ay conseils c'est important que ma wax ko pour ceux qui ne connaissent pas ma relation avec Yirim Seck bii toog 2008 13 rue Ordinaire j'habitais au sixième étage mu fekk ma ko ñu dëkk presque quelque semaine on a habité may def sama album on va tout diir mu def ci benn article bu doy bu doy waar depuis boobu aussi bàyyante wuñu jàkkaarloo nag moo permettre ñu retrouver waat muy nit boo xamante ne à chaque fois il me met daf may orienté may rafetlu sama àndandoo ak waa jàkkaarloo parce que képp ku fi toog fii saa yu ma jógee ci émission bi daf may fortifier parce que damay jàng ci Pape Djibi Fall dara jàng ci même les invités qui viennent même bu fekkee dama leen di sëfal même ba ci Condé bi tookan c'est-à-dire chaque personne qui est mm. mu nekk plateforme boo xam ne vraiment daf may yee ci àdduna mm-hmm. jàngal ma ci àdduna permettre ma aussi may defaraat sama taxawaay loolu c' est quelque chose d' assez important et je voudrais quand même le souligner. et doo wax ni man. waaw may sonal ci defal thème bi thème bi waaw ah. man <laughs> yow yow yaa ma a ubbil adresse e-mail. Ah, voilà <laughs> voilà fàttali loolu ba pare. au ah, moo ma njëkk a ubbil adresse ma sonal ci MEDER allo. MEDER du ñu def thème bi. waaw donc loolu la quoi wax ci boobu mënoon donc donc jaar jaar bokkul. waaw donc li ma bugg a wax nag. Mm. particulièrement année bu xaw a doy waar la. Mm-hmm. li doy waar si at bi mooy. ay euh, quatre cent plus de quatre cent cinquante jeunes ont péri en mer ils sont presque morts dans l'anonymat